lu mel ne ne PUDC boo xoolee lu mel ne ne Promoville CMU yu mel noonu yëpp yi nga xam ne ne président de la République sumb na ko à travers des projet ak ay programmes yoo xam ne assez structurants dama yaakaar ne ni nit boo ko bëggee défendre il faut nga xam lu muy def donc mise à niveau lay doon ci ñun militants yi cadre yi responsables politiques yi ñëpp nekk au même niveau d'information d'abord deuxième chose mooy tamit leeral askan bi ñi nga xam ne ne euh, lu nga xam ne ne président de sumb na ko gis-gis bi nga xam ne ne président am na ko pour yóbbu Sénégal euh, ci kanam pour améliorer nekkinu euh, askan bi loolu yëpp ay éléments yoo xam ne ni yu am solo la loo xam ne ne école du parti tey pare nañu waxuma sax ndakaaru rek dugg biir Sénégal yëpp waxtaan ak askan bi waxtaan ak militants yi waxtaan ak responsables yi pour wan leen li nga xam ne ne nguur gi mu ngi koy def ci lu baax. Mhm. Euh, waaw xanaa euh, jàngat buñ ci am mooy rafetlu bu baax a baax euh, maîtrise bu mu am ci sujet bi tey. programme décennal de lutte contre euh, les euh, les inondations bi nga xam ne ne indi na coow lu bëri nit ñi dégg nañu ñu koy wax programme boobu mu ngi tàmbale woon bi nga xam ne ne amoon na ay taw yu metti yoo xam ne ne ah, indiloon na lor askan bi 2012 ku teewlu rek fàttali delluwaat ci ginnaaw xam ne ne boo demoon ay Cité Bellevue boo demoon ay Ouest Foire boo demoon ay euh, Cissesse Foire ba boo demoon hôpital Philippe Maguilène Senghor bi nekk fii ñëpp ñu ngi fàttaliku ne miir yi daanu woon na ne mu indi ay lor bu metti ci askan bu loolu amee nag président de la République dafa waxoon ne dañuy def état des lieux ñu càmbar mbir bi ne wax dëgg yàlla bëgg na tey affaire mbënd ba taw bañati nekk lor ci askan bi donc ñu évaluer def benn diagnostic tëggal benn programme boo xam ne ci fukki at lañ koy lal programme boobu nag euh, ñu budgétiser woo ko woon ko ci ay milliards et kon tey am na ay infrastructure yoo xam ne ni yu mucc ayib yoo xam ne defoon nañ ko ci bërëb yu ma leen limal léegi lu mel ne ne Grand yoof lu mel ne ne Cissesse yu mel ne ne yoof lu mel ne ne Ouest Foire lu mel ne ne Bellevue euh, boo fa demee tey taw yi weesu soo fa jaaraatee di nga xam ne ne wute na ak 2012 bu fi taw bi amoon kon soo ko méngalee ak lu mel ne ne Kër Massar yu nga xam ne ne programme décennal de lutte contre des investissements defaguñu foofu à réalisation nga méngale ko ak fi nga xam ne jaar na fa def fa réalisation di nga gis ne y a amul ay lor par rapport ak Kër Kër Massar. bu weesoo loolu gis nañu ci ñi nga xamante ni da leen woo ku ci mel ni ki euh, monsieur Sakho bu ONAS dañu gis yéen ngeen am benn mandarga boo xamante ni day nduroog ay avocat mm-hmm. boo leen woowee ministre bi wala ki invité da ngeen naan ko ci baar bi. est-ce que mën nañu xaar ëllëg ngeen am koo xam na ngeen koy woo gën ko teg ci yoon. waaw xam nga lii man mandarga lay lu muy lu muy firme lu muy firnde rek moom mooy tey euh, nekkuñu nag tribunal daal waaye tamit lu muy firnde ne mooy que quand même euh, école du parti dañuy euh, yaatal. école du parti dañuy may. Euh, DG yi may ministre yi yi nga xam ne ne euh, président de la république am na lu mu leen dénk ci yenn fànn yi ñu leeral askan bi li nga xam ne ne ñu nga nekk di ko def wax dëgg yàlla euh, bu ñu la dénkee ah lu lu nga xam ne ne askan bi yëpp moo ko bokk ah, laaj na de temps en temps nga ñëw. leeral askan bi li nga xam ne ni ñu ngi koy def lu baax parce que tamit réeréwu leen mbir am na ñu bëri ñoo xam ne yëkkati nañu ay kàddu di wax lu ne ci programme décennal de lutte contre les inondations wax ci euh, prix bi lii la lii lañ ci def la leen lañ ci def kon ñun bu ñu nekkee école du parti war a former militants yi war a former cadres yi war a leen tàggat ci yëpp lu nga xam ne ne lu rafet réalisation yu président de la république di di def kon su fekkee coow bu mel nii bëri na wax dëgg yàlla tamit war nañu mën a euh, invité euh, ku ku ku ku nga xam ne ne am na responsabilité ci ci fànn boobu mu leeral askan bi lépp li nga xam ne ne ñu ngi koy def ci lu rafet ci fànn boobu waaw Djibril Ba rapporteur général école du parti bokk ci cadre parti bi aussi di nekk responsable politique fële ci Parcelles Assainies